asalaamaaleykum sunu mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi ànd ak ñun ci sbtmedia.com ñu ngi fii nag tey ci euh, Dakar particulièrement Pikine fekk fi ki nga xam ne moom la ñuy wax Serigne Cheikh Ndong borom demande bi <coughs> Serigne Cheikh euh, sbtmedia.com ñu ngi lay nuyu tey yow lan dalal seen émission seen muslaay. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin allasi ahsana kulla cheyin xalaqahu wa bada xalqal insana min tiinin summa jaala nasluhu min sulalatin min main main summa shawaahu wa nafaxa fihi min ruihi wa jaal lakum chama wal abshara wal afidata qalilan ma tashkurun yaa jamaata almustamiuna alkiram nuxayikum taxiyata alislam taxiyatan tayiban min indillahi taala alawi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk ñi ñi ngi lay seetaan ñi nga xam ne ñi ngi lay seetaan te te te te te maanaam miinuñu la bu baax maanaam ci lan ngay yëngutu waaw ñun de Eh, li ñuy yëngu mooy lenn si ñaan yàlla te it eh, doon na loo xam ne nii nekkut loo xam ni dañoo jugleeg eh, dugg si ndax boo xoolee dañoo juddu fi ñu war a juddoo suñu wàjjur nekk Cheikh Mouhamadul Moustapha Ndong nekk koo xam ne nii mu xaddam la woon si Serigne Babacar si bi ñu juddoo nag dem nañ jàngi alquran si daara ji ñuy wax daaray Serigne Bachirou Sarr si kawlax ngaan sayar foofu lekk daanaka def nañ fa ay at yu takku bañ fa jugee jaar nañ fu ñuy wax Thiès quartier bu ñuy wax R100 def fa ay at yu takku biñ fa jugee nag si lañ ñëw fii nii dakaar nekk suñuy mbir muy wàllu ñaan yàlla te yonent bi moo ko wax moo ne adduwaawu mu muminin nee na ñaan mooy ngàndaay jullit te adduwaawu isa am ma nafa ñaan bu mateel ak jariñ moo tax nag ñu dikkalek nekk te ndax it boo xoolee ki nga xam ne day ñaan dafa am ay melokaan yi nga xam ne noonu la war a takkaayoo ndax boo xoolee waykat ba daf ko wax mu ne womi wa min sifati allati yajibu an yataalla biha al mualiju al ixlaas mu ne melokaan yi nga xam ne sëriñ bi ñaan yooyu la war a takkaayoo ba sa njëkk mooy sellal sellal nag boo ko déggee yow mi may seetaan te xamoo ko mooy yëngatug waa ji ak ak dalam yépp nekk lillaahi ta nekk ngir jëmmi yàlla ji kon nag moo taxoon daal ñun ñu dikkale ngir jàppalanteeg jaamu yàlla yi ndax man amila saalihan fa li nafsihi ku def lu baax rek sa bopp waaye nag wa man asaa fa alayha hmm. Hmm. mu mel ne que jamono ji ñu toll kon wàllum ñaan ma buñ ko waxee ndax nit ñi fi ñu toll nii mooy problème mu problème mu sëy lañ am mm-hmm. jigéen ñi problème mu am jëkkër lañu am mm-hmm. góor ñi am problème mu am am li nga xam ne moom mooy moom mooy jabar mm-hmm. lan moo xëy def loolu lan moo xëy def rab moo xëy def wala nit ki day tëju wala lan moo xëy def lan moo lan moo xew ci point boobu noonu ba tax léegi sëy moom ba ba léegi sax da ngay takk sëy tay tay tay suba sëy bi tekkee ko waaw ndax boo xoolee jamono ji léegi loolu li ko waral damay wax ne bu fekkee si wàllu jigéen ñi am na ñoo xam ne ni waajur yi dañ see am part des responsabilités ndax bu fekkee am nga sa njaboot mu nekk koo xam ni tout tànk la ba mësër di sol sol yoo xam ne nii sol yu jóodut loolu day waral ndax jinne yi lu bari dañuy bëgg wàll boobu noonu rab mën na la dugg koo ànd ak bala moo yàgg nga tàqalikook moom waaw kon bu fekkee jigéen gi la moom li nga war a def mooy nga solu solu gu baax ndax boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kullukum raain wa kullukum mas'ulin an yi mu ne képp koo gis ab sàmm la sàmm boo gis nag ëllëg yowmal xayaam yàlla dana ko laaj la nga doon sàmm ana naka nga ko doon sàmmee kon wàjjur yi njaboot yi bala ñoo dem di sëyi dañ leen a war a bu baax yar leen ndax boo xoolee alquran mi ngi koy wax mu ne yaa alladina amanu qu anfusikum wa ahlikum naaran wa quudaa annaasu wal hijaaratu alayha malaikatun xilaasun sidaadun waaye laa yaxsuuna allaha ma amaru wa yafaluuna ma yumuruun gis nga yàlla bi muy wax aaya boobu mu ne na ngeen fegal yéen waajur na ngeen fegal seen bopp fegal seen i njaboot na leen leen di fegalee ba si sax njaboot bi ni mu war a sëyee ak ni mu war a comporté woo bu demee si néegu sëyam loolu yi da koy waral waaye jigéen ñi léegi boo xoolee ñu bëri dañuy dikk ah sëriñ bi man de li ma xaw a jot mooy lenn damay am faru rab de boo xoolee sax nekkut faru rab ndax li muy sol la bët làmmiñ mën na ko jàpp muy wàllu cat bu fekkee wàllu cat jàpp na la boo dikkee ah seet si Serigne Cheikh Tidiane Ndong borom damaan bi ah am na ay yoon yoo xam ne nii incha allahu taala su ngeen si jaaree yàlla man na laa may ah saafara incha allah bu fekkee si wàllu góor gi ndax da ngay gis ñu bëri dañ la koy wax am na ñoo xam ne dañ lay wax naa la man daal bu ma nekkee sama néegu sëy na ma sa war a yàggee duma ma ko si yàggee. ma ne nag bu muy wàllu li nga xam ne moom mooy impuissance sexuelle. Uh-huh. waaw muy impuissance sexuelle ñu bëri dañ ma koy jàmbat. waaye buñ dikkee ñu nit am nañ si ay yoon yoo xam ne ni incha allah taala doon na loo xam ne nii ah dañ ko fekk suñuy waajur di ko def ñu tarbiyo ko ba am si ndigal moo taxit ñu ñu jël ko di si xettali jaami yàlla yi hmm. gis nga loolu nag moom bu fekkee ne ah, yàlla dogal na ne ba nga gisanteeg Serigne Cheikh Tidiane Ndong borom damaan bi ah bu la ko joxee nga defee ko nañ la ko waxee ndax dañuy waxee ne nañ koy defee moom jamono boo reeree ba pare ba nga xam ne tëdd moo def diggante bi euh, durant 15 minutes nga koy jël benn kuddu ga siy jël nga naan ndox kuddu kafe nga naan ndox incha allah taala ah te nekkul ne boo ko jëlul rek doo am la nga amoon moom dalay traité incha allahu taala ba nga tàqalikoog wàllu néew kàttan incha allah mm-hmm. mu mel ni que bunt boobu moom leer na waaye ñi nga xam si ni maanaam dañuy bëgg tukki mm-hmm. bëgg seetlu seen mbir maanaam wala ñu nekk bitim réew am jafe-jafe kéet est-ce que Serigne Cheikh Ndong borom damaan dina yëngu ci loolu waaw képp koo xam ne nii yaa ngi bëgg wàllu seet wala it yaa ngi nekk fële sa réew ya ndax day am ñoo xam ne sax Ah, dañ ciy jëflante ak ñoom si wàllu boobu noonu ndax boo xoolee ki nga xam ne nekk na réew ma bëgg naa xam lan mooy ay mbiram waaye Serigne Cheikh Tidiane moom seet bi mu yor ah mi ngi ko yor si wàllu ram li la yor waaw boo ma wooyee jox ma sa tur ak sa turu yaay incha allahu taala lépp loo xam ne nii mi ngi si yow ak li nekk sa kanam si kattanu yàlla ah incha allahu taala dana la ko wax te dana la waxal it sarax yi nga xam ne soo ko defee a ah, man ngi naa bañ a gisee sax sarax yi nga xam ne boo ko defee incha allah ah yàlla subhaanahu wa taala naa soppi say mbir ki nga xam ni day wut ay këyit day wut këyit bëgg kaa am boo gisanteeg Serigne Cheikh Tidiane Ndong am na ay yoon yoo xam ni boo ko defee ah boo demee ambassade incha allah kenn du la gàntal waaw ndax lépp it si alquran lañ ko teg ndax maa farradna fi kitaabihi min shay'in hmm. yàlla neen sama téere bi di alquran mu ne bàyyiwuma si dara hmm. lu baaxang si luy defarang si luy yàqang si yow nag sa wàllu iman ma na laa tënk ba nga xam ne a ah, langa nga Euh, wàllu li nga xam ne mooy defar li nga xam ne mooy wàllu tase yeeg yooyu noonu ah nga teg ko nale ndax ñun ay jullit lañ te jullit dafa am si luñ koy xaar. Mhm. mu mel ne que seen mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan sbt media point com ñu ngi ak Serigne Cheikh Tidiane borom demande bi ci émission bi nga xam ne moom mooy seen muslaay tey moom lañ dalal mu mel ne que Serigne Cheikh buntu yooyu nga wax leer na waaye mu mel ni fan yi Sénégal wala waxuma sax Sénégal waaye àddina bi yëpp émérite da leen a sonal émérite naka nga def émérite waaw wàllu hémorroïde moom damay wax ne ñun ah, ah doon na loo xam ne nii buñ doon wax wàllu qualifié dañuy wax ne waaye jërul ndam qualifié nañ si ndax liñ si yor moo wér waaw wàllu hémorroïde man dama koy wax ak benn waay ma ne ko wax dëgg bu fekkee ne hémorroïde sax kiiw la wàllu seere moo nit te yow ñu yëpp benn jàng benn kii bi la benn xeet bi la ndax boo xoolee hémorroïde dafa doon loo xam ne dafa sonal doomu aadama yi ndax da ngay gis nit ki muy xalaat xalaat yu bëri hémorroïde da koy def day gi ngay day ballonnement yi dala koy def waaw am na ñoo xam ne day ànd ak it ndoxu siti waaw am na ñoo xam ne nii dañuy am fatiguement général nga toog rek sa yaram yëpp àndandoo di métti hémorroïde da koy def ak it day euh, waral it nit ki bu nelawee wàllu insomnie da koy def boo nelawee ba nelaw ba digg guddi gi jot mu lu demee ni ay trois heures du matin say nelaw jeex wala boo demee boo demee ba ay 3 heures du matin si ngay dog di mën a nelaw yooyu it hémorroïde da koy def hémorroïde bu la jàppee sa wàllu kattan yit da koy wàññi mooy sa wàllu ngóora kon émérite képp koo xam ne nii jot na la Serigne Cheikh Tidiane Ndong moom boo jokkee moom incha allahu taala ah traitement complet lay def incha allahu taala li ngeen waxante bu ngeen ko sàmmante ah incha allah bala moo yàgg bu soow yàlla da nga gis résultat incha allah. Mm-hmm. mu mel ni que liñ ñu mën ci waxtu mi ngi bëgg a jeex. Mm-hmm. waaye mu mel ni que Sénégal am na ay xeet phénomène yoo xam ne dafay am. Mm-hmm. muy wàllum làmb. mu bëri sëriñ soo xam ne si dañ cee wax. est-ce que wax ci wàllum làmb. Mm-hmm. waaw wàllu làmb waaw dañ siy wax. Uh-huh. ndax it uh, am na lu ñu si yàlla may. si uh-huh. wàllu uh, si wàllu làmb. léegi ci lu gàtt rek. Mm-hmm. balaa ñuy tàggoo émission bi. Mm-hmm. tey combat bi nga xam ne moo dox si diggante ki nga xam si moom mooy Modou Lo. ak moom mooy Ama Baldé. Uh, mu mel ni que promoteur ñu ngi ciy wax booba léegi. yow est-ce que maanaam ñu naan ñi naan Modou dafa jekk. ñi naan Ama Baldé moo jekk gut yow tey en tant que Serigne. seex Cheikh Ndong borom borom demande bi. lan nga ñu man a wax si combat boobu tey bu taxawoon tey nii nii nii nii. waaw combat boobu li ma si laabiree jaam yi mooy lenn te li may wax dama koy wax li wàcc laahi taala gis nga combat boobu muy Modou Lo ak euh, Ama Balde combat bi bu taxawee si 2019 bii nii dama lay wax ne la xaw ma ndax bu si taxawut waaye bu si taxawee ñoom ñaar buñ bëree Modou Lo mënut a daan Ama Balde si 2019 bi buñ si bëree moom incha allahu taala ki nga xam ne mooy daan si 2019 bi Ama Balde lañ gis waaw. waaw mm-hmm. ah, moom mooy daal incha allah. Mm-hmm. loolu daal la ñu gis. Mm-hmm. kon baax na incha allah bu ko defee fu ñu ci tollaat rek dina ci ñëwaat ñu àndaat ndax SBT Média point com fii la lépp leeree. ma leen di wax ne man ngeen continuer ngeen abonné ci seen seen YouTube SBT Média point com waaye mën ngeen a ñoo suivre ci li nga xam ne moom mooy 3W SBT Média point com ci sunu site internet mën a ànd ñu suñu page Facebook SBT Média point com mën a ànd ñu Twitter Instagram. ak euh, whatsapp di leen jaajëfal di leen wax na seen émission seen muslaay suñu Cheikh lan ngay tàggoo ak nga joxe sa numéro téléphone ak adresse bi nga xam ne ku la bëgg a gis waaw li may wax daal ñi ngi lay sant yewit di la gërëm di ñaan yàlla euh, sit bii di SBT ah point comme yàlla yàlla gën ko dooleel yàlla yàlla gën ko yëkkati ba fi ñuy dégg télé yëpp yàlla def ñu dégg leen di sant yàlla bu baax ah, suñu numéro téléphone nag ku ñu bëgg a jot mën nga ñu woo si numéro bii muy 77 250 76 50 77 250 76 50.